kanzul faqiir yow la mi taamu raa yow nga neel wi yaa ko yor maqaamu yaa yor dara ku gaaya am lislaamu ndakaaru yaakaar nañu la ñing lay raamu muriita kubu tiijaana kubu limaamu ñépp a ngi lay teeru di bañ malaamu yaay seneraalu diine yaa xalaamu tewerekaan wi njàmbe moo lay tey sant ndax mu dolli koy maraamu réew ngi lay